koy nettali rek waaye gëmuñ ko de billaahi gëmuñu ko ñoo koy nettali di ko wax waaye gëmuñu ko gis nga yàlla àjjana yim ñu dig àjjana yim ñu dig dañ koy wax bés bu ne waaye gëmuñ ni sax yàlla dañu defal lool gëmuñu ko ndax yow bu fekkee ni tiijaan nga ñu wax la yooyu yëpp te sa werd bi nga xam ne moom lañ la wax nga def ko subaa ngoon guddeeg bëccëg mënoo ko est-ce que di nga gëm loolu kon gëmuñu ko gëmuñu ko ndax léeg-léeg nga ñëw fekk shérif mu toog nga tàllal sa loxo ne ko dama bëgg jël salaatul fatiha nga respecté ko semaine dem weer ñu naan la nax yaa ngi wér nga naan dama am ay bor ah? war nañ sant yàlla bu baax a baax xam nga lu tax gis nga boo génnee bitim réew ba kërti kërti gi jàpp la foofu la ñuy xamee yaay kan ndax di nga jaamu yàlla wala doo jaamu am na ñu nekk bitim réew ñàgg yoo xam ne bàyyi nañ julli bu yàgg bàyyi nañ ko ndax kërti kërti àdduna li may wax man dama cee teg sama bët kenn nettaliwuma ko am na ñoo xam ne jël nañ salaatul fatiha bàyyi nañ ko bu yàgg yàgg yàgg ndax kërti kërti àdduna moo tax li nga xamante ni moom lañu ñu digee ci tarixa cheikh dama ne ñu ko gëm ñu néew lañu ñu néew lañu ndax yooyu balaa nga koy gëm muy dëggu ci yow dafa am loo xam ni dafa war a jiitu ci yow mooy ragal yàlla li sëriñ Abdou Aziz doon wax mais ñun ay doomi jullit lañu jàppee sunu bopp jullit waaye ragaluñu yàlla ragaluñ ko ndax koo xam ni buy tàmbalee def bàkkaar ca xalaat ba lay tàmbalee dooree yegg ci jëf ga kooku ragaloo yàlla alaaji ibu saaxo dafa nettali ci waxtaanam ni dafa am benn nitu yàlla bu dem màkka di tawaaf kaaba gi loxoom daal di dal ci ku jigéen xamul sax ci lan la dal mu ñaan yàlla yàlla yàlla na nga semmal sama loxo bii semmal ndax li mu dal ci kaw mais gars yi bu ñu waxee dëgg tollooguñu foofu non tollooguñu foofu nañ waxante dëgg ñun ñëpp xamante nañ ñun ñëpp xamante nañ kanal suñu bopp ah dangay gis koo xam ni dafay dem signé benn soxna lay am benn gis nga ku naan la benn soxna laay am bu génnee guddi topp ko guddi topp ko bu la tàggee réunion topp ko séminaire topp ko ah ah yaa ngi door a comprendre li ma koo xam ne benn soxna la signé benn fu la tàggu rek topp ko bu ko yàlla dimbaliwul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kuy jàdd ku ne moo la daax a jàdd ndax xam lu ko sonal signature bi ndax bu keneen ñëwee mu ñàkk la mu yore ma bu keneen ñëwee mu ñàkk la mu yore ndax signature comme amul pexe bu ko yàlla dimbaliwul rek ki nga xam ne nag signé na ñeent moo gën a garaaw day def lu ko neex lu ko neex lay def xam lu mu lay wax am naa droit am ñeent te ci ndoxaan la nekk ah mooy li ma wax rek jigéen boo ko gisee bëgg ko demal def faral waaye boo amee benn soxna signé ni ñeent ngay jël ku la neex xëcc ku la neex xëcc bu ñu waxee nga ni man góor laa am naa droit am ñeent ndax dama ko signé te yàlla sax moo la ko defal nga nekk ci mooy ba pare jàpp ni ñee am nga am nga sañ-sañ am ngeen am ñeent fekk yaa ngi ci mooy boo xam ne xamuloo ko moo tax ma ni dañuy fekk loo xam ni yàlla daf ko daf ko daf daf ko xaraamal ñun ñu daganal ko te duñ ko yëg kon yooyu dañ ko war a bàyyi xel mais li la koy bàyyiloo xel mooy nga tënk sa bopp ci sa borom tënk sa bopp ci yonent bi tënk sa bopp ci alquran loolu rek moo la ci mën a dimbali waaye bu dul loolu yii xew ci jamono nit ñi di ko dund boole ko bokk ci tarixa am sëriñ yaakaar ni mën ngaa def lu la neex bu ëllëgee nga rëcc yàlla yaa ngi nax sa bopp waaw yaa ngi nax sa bopp wala yaakaar ni yor nga tur yàlla boo xam ne lu la neex mun nga koo def ci safaan boo xëccee tur woowu yàlla jéggal la Cheikhul Xaaji Malick si nee na yàlla bu doon am sant njuuy lay sant njuuy lay sant bëri na fi luy xew nit ñëpp wax yàlla déglu ñëpp ba ñu pare mu jaar feneen bi ci gën a metti mooy finaalu senegaal bii weesu yàlla rusuloo ñëpp képp koo xoon yàlla rusuloo na la ndax yàlla kenn du ko jiitu ci mëninam gis nga bii bu normal sax xam nañ ko bii bu normal xam nañ ko du la metti waaye bal bu ñu dóor mu dal ci tànk ba ñépp ni day génn mu wàññee ko ñëw dugg ñu bëgg a wax du kenn ku dul suñu borom xam nga lu tax mu def loolu dafay fekk kilifa goo xam ni wax na mu bëgg koo toroxal ci lu ñàkk fayda la koy toroxal duma ko ba mu ne topp ci lu ndaw lu tuuti la yàlla di di di toroxalee kilifa ah yàlla kenn du ko jiitu ci maninan waaw faalun li maa kenn du ko jiitu ci maninam gis nga boo dee kilifa bu lay duma ci lu ndaw la lay duma boo dee koo xam ne nag doo kilifa bu lay duma duma la ci lu mag da jékki-jékki rek xëy sa kër tàkk day xëy rek tàkk wala ñu naan tabax baa daanu ci kawam ak te yooyu wax dëgg yàlla ñi am ñi am nag la waroon a dal asxaabi leen tuuti xeer yu ndaw xeeri tuuti ba pare ku nekk mu defal la étiquette bimu sulu bu ndaw a ndaw ndaw mu toroxal la ci bu mujj bi mooy Ablaye Wade ak Macky Sall Ablaye ak makisal jàngat bu rëy suñu borom jàngale ko xoolal ñoom ñaar ni li ñu seex ak fi ñuy jaar ak dàq beeg yëpp mu wëlbatiku doon président de la république moom Macky ñetti nit waaw mu ne ko moom rom naa ko ay ñetti nit ak kii ñu topp ko ndekete ñetti nit yooyu ñoo koy dugal pale moom mbooloo moomu yaakaar ne mooy gagné moom moo koy génne pale ndax ba muy génn mbooloo ko topp mbooloo ko topp fi mu mujjeeg moom Mercedes la ko may fan yi xaw ma na dëgg la ma na dëgg wax nañ loolu lépp rek yàlla ay jàngale loolu lépp rek yàlla jàngale gis nga yàlla dara safu yi ñuy wax laa wax dara wóoru ci nañ ko bàyyi mbir yi léeg-léeg nga taxaw ni nit ku bon la fekk ku baax ci yàlla la yow sa bopp kenn waxu la ku baax nga ba nga war a àtt ni nit ki ku baax la wala ku bon la yàlla rek a xam léeg ñu gis fii ak nit ak garamb ba muy lëfër lëfër di dem ñu jàpp ni ku yegg la ku baax la fekk sunu borom ci kanam borom tekkiwu fa dara dara dara dara dara tekkiwu ko nañu bàyyi mbiri ak yàlla yàlla moo xam ku baax yàlla moo xam ku bon koo gis mu ne ci safaan lala war sa diggante moom mooy ñaanal ko yàlla mu dellusi ndax bu deekee dafa nekk ci safaan ba nga ko ciy xalaat jàppal ni bés mën naa ñëw nga mel ni moom wala sax moom mu tane la moo tax ñu wax ni Cheikh El Hadji bu nit musaana ñëw ca jàkka ja ak melokaanam ñu bëgg ko génn daan leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko du yàgg tuuti rek kooku defaru yàlla rek a xam kon yàlla mi nga xam ni moom rek moo xam yàlla nañ defaral boppam yàlla nañ yàlla defaral boppam yàlla yàlla nangul ñu yàlla yàlla nangul loolu moo am solo yàlla nañ yàlla nangul boole ñu ci boppam fii kenn amul droit àtte kenn walla nga waxal kenn dara fekk yàlla àttewul yàlla rek a xam waaw yàlla rek moo xam man léeg-léeg bu ma gisee kii nii kii ku bon la damay tiit ma ni mais kii est-ce que moom dafa baax ba am peesekaay nattukaay ba xam kii ku bon la est-ce que am na peesekaay boobu loolu yàlla rek a ko am ah boo nee kii ku baax la ah est ca yàlla ko baax la ah dafa doy waar de yéeg yooyu nag li sëriñ bi doon wax sëriñ Abdul Aziz ku tënkul sa bopp ci ñett yi mu doon wax mënoo fexe ba am yëg yéeg yooyu te yéeg yooyu rek moo am solo yàlla nañ ko yàlla defal a ah, bi ci desit mooy ñun ah, sànq kii doon way borom trois pièces bu rafet bi waaw sànq am na loo wax ci xalifa bi maam Njaay maam Njaay xalifa bi amatul doom xalifa bi fi mu toll nii moo njaboote ñëpp xamatul doomu deret wala ku dul doomu deret ñëpp ay doomam lañ ñépp ay fi mu toll nii amatul doomu deret amatul doomu deret gis nga am na loo xam ne kenn du ko wax sax ci sa kilifa gis nga ni ko yàlla bindee bu fekkoon ni day bëgg dara kon ñëppay ñàkk waaw ñëppay ñàkk waaye yàlla defal na ko li mu koy defal ba pare xañ ko mu bëgg dara bu bëggoon dara du baax bu bëggoon dara ñëppay ñàkk waaye yàllaa ko mooñ mu bañ a bëgg dara te lii nii préparé nañ ko ci bu demee ba jamono mu dégg yii ndax du dégg mukk lu alaaj Mansour déggul waaw waaw du dégg alaaj Mansour déggul waaye alaaj Mansour dafa ne dégg toog fa mu war a toog def la mu war a def kon bu ñëwee nekk njabootam moom it foofu rek lay jaar waaye nag attention yàlla ku mu nar a duma wala ku mu nar a toroxal da lay xiirtal ci nitu yàlla xam nga olof lu mu wax ku bëgg a jooy da ngay tooñ ku la ëpp doole bu ko defee mu duma la nga jooy yàlla ku mu bëgg a duma rek dina am cause bu mu créer nga def ko bu ko defee sa toroxtaange juddu ca loolu waaw ndax alaaji Mansour mun Mansour ah dafa doon wax ni sama yaram bi ah lu neex lu neex waaye mën naa wax de waaye du yàgg tuuti di nga ko gis waaw dañ ko tooke poison moo ci nekk ku ci wax lool ci warta wax di nga ko gis te yooyu yëpp àdduna teg na nañ seen bët kooku nag mooy waajuram dóor ko douze coups ci ñëpp Sénégal gépp gis ko nit fekk na ko suma papa nee na nit fekk na ko ca daara ja mu jóg di dem cees mu ñëw ci fauteuil bi mu toogoon mu jam ci paaka xotti ni kii bi toog moo ko fi fekkoon nii laa koy def alxaaji Mamour nduur dem Thiès wax ko ko mu ne ko e xamul ni mooy toroxteem dem na ba Cheikh alxaaji Abdou Aziz di ko seeti lu muy def ci kaw lalam la koy def ba ni mu deewee kaddu dong moo ko indi waaw dara indiw ko lu dul kaddu wax rek wax yu ñu warta wax rek mu dikkal leen àdduna bu yàqu kàddu kàddu rek moo ko indi kàddu rek moom moo ko indi moo tax ñi yàlla nam ma defar dañuy tëj seen génn Maam Mansour li ko Cheikh Alxaaji Malik defal daf koo defalul kenn ñu ni sëriñ Cheikh lan la ko defal lu mu defalul kenn mu ni mooy mu yar ko ba lu yàlla bañ mu bañ ko lu yàlla bëgg mu bëgg ko aba ma aba rahman ne lu yàlla bañ alay Mansour bañ na ko lu yàlla bëgg moom la bëgg waaw innahu fatan nag la yusaawa fi faxaari wa sudani cam la soo xamante ni sëriñ Cheikh nee na dootul yamat kenn ci nekk sang ak bu këréw moom dong la wala qad raaytu fi makanin maaliya maa ko seen ca martaba yoo xamante ni ba mu ca wàccee nit toogatu ca kon nag waaw waaw loraange yooyu yëpp kàddu rek moo ko indi ku yàlla na dimbali nag dina tëj sa gémmiñ ku yàlla narta dimbali seytaane dana dugg ba nga wax loo xam ne moo lay jural sa yàqute ëllëg te doo ko xam kon lu mën a xew nañ ci teew nañ ci teey lu mën a xew rek nañ ci teey ndax seytaane ci boppam dafa am fiir yu muy teg pour ñi ci war a yàqu-yàqu ndax seytaane am na ci barab yoo xam ni dem fa yitteelu ko ndax xam na ni ñooñu njabootam lañ waaw yitteelu ko de du ci daj benn coono waaw ndax seytaane bu ne woon day dem grand théâtre pour yàqal ña fa ne lu mu koy jariñ ñooñu yàqule nañ ba pare yàqule nañ ba pare mais ci jotaay yu mel nii lay dugg xam ni fii mbaax a ngi fi yiwu yàllaa ngi fi mu fexe ba yàqal ci kenn yii la soxla kon nañu moytu dara xew ñu wax kàddu ndax dafa am ñoo xam ne seen kàddu ngir bëgg a xam dara la laaj la laaj boo xam ne dañu ko wiiri jaaruñ ci digg bi boo dul boroom xel nag ba daanu ci mbir mi da nga wax loo xam ne bu ëllëgee bu ñu la yóbboo da nga naan sama wax ji suñu sañoon du ma ko wax waaw te ñooñu rek ñoom ñoo fi fees ñu ñu ñu daaneele nag fi nga xam ni moom la Serigne Abdoul Aziz daaneele man foofu faw ma wax fa ndax xam na lu tax donte ne kër Cheikh Al Hadj laa bokk waaye damaa wëlbati bu am cofeel sama diggante ak Cheikh Al Hadj cofeel bu dëgg mu bëgg ko bëgg boo xam ni du du du diggante maam ak sët sax waaye nit ak njabootam waaw man li may wax toujours fu ma dem balaa àdduna doon xam man li ma mel ci Cheikh El Hadj Malick àdduna yépp won ko gannaaw ba ma des ak moom man foofu laay nattee sama cofeel ñu dem ba jamono ay nit yoo xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñooy weddi seen bopp li may bëgg wax su ma ko waxee di ngeen xam ñoom ñooy weddi seen bopp ci ñaar ñoom ñoo wax ne Alaaji Malik intellectuel la boroom xam-xam la bi mu fi nekkee ak tubaab bi tubaab bi sonal kilifa yi kenn rekk ko te woon mooy Cheikhul Xaaji Malik te lan moo tax mu të ko mooy xam-xamam la doon jëfandikoo ak tubaab bi te Maodo la mu doon def moom la tubaab bi gënoon a bay moom moo taxaw wax lool de léegi kooku bu wëlbati koo waxaat safaan ci Cheikh Xaadim Maalik yéen ñi nga xam ne yéen nekk njabootam am cofeel ci moom est war na leen a metti waru leen a metti loolu dafa war a yokk seeni cofeel te olof dafa ne nit la mu wax ba mu meragul mooy dëgg waaw la mu wax ba mu meragul mooy dëgg garaat bu ne nga takkal ko Cheikh Al Hadj Malick kenn sexalu la lem na yëpp taxaw nga wax loo xam ne kenn mënu ko weddi ndax bu doon njabootam la dañ naan dafa bokk foofu waaye yow danga ko koo seede rek te yàlla tax jamono boobu mu neex loolu ñu dem ba jamono ka nga taggoon nga bëgg koo xas benn nit benn tagg ci benn gémmiñ ci benn nit ci benn barab mënta nekk mënta nekk bi ci des nga ni Cheikh Al Hadj ku ko bañ bul julli ku ko bañ bul julli wala boo jullee bul jàng fatiha ndax fatiha turum Malick mi ngi ci te boobaa da nga tudd Cheikh léegi moom nu mu war a def rek kon <laughs> moo ko waxoon yaa ngi toog ci ca grand cité université waaw noonu lu amul seede baaxul waaw léegi léegi moom nu mu war a def jamono yii loolu laa leen di laaj jaaxal si na te ku dul julli yéeféer la léegi bi ci des gën cee reelu mooy xalif général de Tidiane la déjjatee Tiwaawan man yaakaaroon naa ni seen kër la koy yóbbu de non wax dëgg yàlla bi ma ko déggee dama ne foofu la koy yóbbu mais mu ni nii ba gaay ni fii la mu ni déedéet fële amatul benn xor <laughs> amatul benn xorom no daf ko mérité wul yéenew ko boppam waaye gis nga ni yàlla di àtte ñooñu yow fa nga dal baaxul fa mu dal baaxul ñooñ ca la gën a gis nga li ma la doon wax ci la gën a ndaw lañ lay dumaa la la yàlla di dumaa ñooñ dañ ko liir bi nga xam ne mu ngi door a juddu kër Cheikh Hadj Malick di nàmp suñu sëriñ la <laughs> te liir ñëpp ko mag ñëpp lu gën a ndaw ci lañ lay toroxalee kilifa kon wax yooyu dafa war a yokk seen cofeel li Cheikh li li sëriñ Abdou Aziz Fall di wax nii dafa am ay mbayaar am fu tànke am naaru góor ñoo ñëpp bokkuñu classe yi ñuy daw kon yooyu course bi dafa am ay qualité am ay quantité ñun ki ñu ki ñu am qualité la qualité la qualité bi gën ci qualité yi kon bu ñu nangu ñi nga xam ni tekkiwuñu dara di wax ci moom ñu leen di may temps bu ñu tontoo déedéet ñun nañu wëlbatiku ñaanal kooku mu dellu si am na ñu bokk ci famille ñoo xamante ni tey boo laajoon famille bi ni leen diw mi bu daganoon ñu génnee la ci njaboot yi dootoo yore sant bi ñoom dañ koy def loolu la Habib di wax déjuréet jur nit ba pare ni maa ko dindiwaat déjuréet waaw parce que nit dina bokk ci famille ci waxam ci jëfam mu teg gàcceem famille ba dootuñ sax bëggati mu bokk ci famille bu ñu mënoon soppi turam soppi santam dañ koy def mais mënuñ ci dara mënuñ ci dara ñun nag li ñu war a def mooy dajaloo ñaanal ko parce que xëy na du tayeef mooy li ñu doon wax rek jaamu yàlla du ci dara nga yéene ko ko li nga war a def mooy ñaanal ko yàlla mu delloo si am na ñoo xam ne kenn du leen jërëm dañ leen di ñaanal waaw kon nañ leen ñaanal ci barke Cheikh Al Hadji Malick moomu mu doon ñàkkee teggin mu dellu waaw yàlla na ko yàlla indiwaat ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah loolu moo doon kàddu yi di jéggalu nag waa di jéggalu ndax jotaay bi yàgg na te soxla yi bari na te yitte yi du jeex li Serigne Abdoul Aziz waxoon loolu rek dañ ko war a doyloo ñun ñëpp na xadara bi yëpp benn la waaw xadara bi benn lépp benn la bu waxtaanee njaboot Cheikh Hadj Malick yëpp lay yóbbuwaale ñoom lay dugal rawatina ñu ñëw fekk fi Chérif Ibrahim moom ni ma ko waxee woon ci njalbeen suñu wëllëre la suñu xarit la sunu lépp la loolu moom du deñ ba ilal abad yàlla na ko yàlla saxal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla may ñu nag ñu teewaat lii waaw ñu teewaat ko ak yu baree bare te kenn bañ a manqué te nag yonent bi tamit boole ñu ci njabootam sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàlla defal man gëm naa ni ñëw na fi tey lu ma gëm la waaw ndax dimension waxtaan bi ak ci nit ñi da ngay gëm ne yonent bi sallallahu alayhi mi ngi fi ndax wax naa leen ne yonent bi fu mu bëgg la ñëw kenn du ko fa waxtaane waaw waaye man si sama yëg-yëg gëm naa ne mi ngi fi mook Cheikhu Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu yàlla yàlla yokk suñu cofeel ci moom bi jaay seydil wujud ànd ak wér ak tal ak fekkee yàlla faj aajo biir yi ak biti yi yàlla yokk sutura bi yàlla def wér ak gudd fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ñu xasee ba jóge fi am yëg-yëg ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu doon waxtaanee am nañu cofeel boo xam ne kenn dootu ko laam-laame loolu mooy njariñal waxtaan bi waaye bu ñu bàyyee yitte yépp ñëw toog woo boroom xam-xam yi woo kilifa yi ñëpp ñëpp ñëw toog ñu waxtaanee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni benn nit rek lañ doon waxtaanee amul solo yal na yàlla def cofeel cofeel bu wéer ci ñun digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mag ñu baax ñi fi ne ñépp kenn ku ci nekk sa cër yaa ngi ko jëlee ci yonent bi moo tax ci yonent bi rek la ñuy wax waaw seen lépp yonent bi la te ñooñu ñooy sunu wasila ñooñu ñooy sunu wasila soo amee wasila nag bëggu ko mu dëggu ci yow fa mu teg tànkam foofu ngay teg tànkam waaye liy seetlu mooy léegi waxatuñ sax yonent bi waaye yàlla sax joxatuñ ko cër bu mu yelloo waaw bokkaale bi bari na ko ni ko sëriñ Habib di waxee dafa bari te bu bu baree nag dana dem ba ba ba xiin ba ñu tiim bu tawee rek musiba ñëw waaw te jomb fi nag waaw ñu xam loolu maam moo doo nekk fi maam Cheikh Ahmad Bamba nekk fi nitu yàlla yi fees fi dell jomb fi am na xiin boo xam ne biis boo ko fi tawee du baax waaw te lii tax nag mu taw mooy bokkaale bu bari yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal yàlla du moroom yonent bi du moroom yàlla du moroom yonent bi du moroom te man dama xamul lu nit di liggéey wala nit fu muy toll bay jël yàlla wala yonent bi di ko tëkkaleeg sëriñam man daal loolu jaaxal na ma jaaxal na ma nit lu muy yore di ko def ba yóbbule ci xaal yoo xamante ni place bu borom bi danga nga fay teg sa sëriñ place bu yonent bi nga teg fi sa sëriñ loolu loolu du jàmm du jàmm du jur jàmm nañu yem ci sunu lazim suba ak ngoon yem sunu wasifa mënuñoo am lu ko ëpp mënuñoo am lu ko ëpp buñ ko fi bàyyi dem ci leneen dañuy sonal sunu bopp te duñ jot dara waaw kon nañ ci sax nañu sax ci sunu lazim suba lazim kon parce que ku la jox istighfar jox la salaatul fatiha jox la laa ilaha illallah mënatuloo am ci kaw suuf lu ëpp loolu waaw mooy li sëriñ Abdul Aziz doon wax loolu bu safee sàpp ci yow foo dem dangay derange waaye nga dem tasanteeg koo xam ni tekkiwul dara ku ñàkk jom koo xam ni liggéeyul deful dara di xaar xale yu ndaw mu ñëw leen naan leen xam ngeen bu ngeen laazimee pare lu ngeen war a def pour ñu pour ñu nangu ko nga naan ko déedéet mu naan la ñëwal sama kër nga ñëw këram mu booyal loola ànd ataaya loola tàngal loola ceeb fu mu jëm ni la gunge ma ñu naan diw mooy taalibi diw ñu naan daf koy tarbiya te joxagu la lool de exploité la ba ngay bëgg a dee nga ñëw mu wax la loo xam ne bis bu ne yaa ngi koy romb di def wala xam nga lu mën a remplacer maanaam lazim suba lazim ngoon ak wasif xam nga lu ko mën a remplacer nga ne ko déedéet mu ne la ñëwal sama kër ñëwal sama kër boobu dina la jariñoo jariñoo jariñoo ba nga tas mu jox la lam la jox doo am sax tax boo ko jariñoo loolu rek moo fi am te yooyu yëpp bëgg mbooloo bëgg daraja rek moo ko indi nañu doon ki ñu doon waaw nañu doon ki ñu war a doon mbooloo moo gis seytaan yi dugal loxo seytaan da di dugal loxo mais am na sëriñ boo xam ne ba mu duggee ci kaso bi mais mbooloo moo ko dugal kaso ah mbooloo moo ko dugal kaso am na seriñ yoo xam ne bu ñu dellu si woon seen mbooloo yi li ñuy wax jamono ji danañ tax seen gémmiñ nga xam ne ñoom def nañ lu ëpp def nañ lu ëpp waaye nag li ma waxoon yàlla moom yàkkamtiwul dara day xaar rek bis ba ñëw mu at kenn ku ci nekk la nga yool mu jox la sa mbuus nga dem sa mbuus nag yaa koy tekkil sa bopp loo ca fekk yow la ndax caméra yi mu am day na waar de bu la joxee mbuus bi nga di diiral mu taal caméra yi te balaa mu bu la joxee mbuus mi ba pare balaa muy taal caméra yi dossiers yi la lay jox dossier yi bu bañee moom ci boppam maanaam lépp lu loxo defoon moom mooy waxal boppam kooku dossier la saxal ko gémmiñ ni ko lépp loo mën a laal loo mës a def yow waxal tey dina wax ba ba ba borom waaw waaw ndax léeg-léeg mu wax ni def naa dara loo xam te ni dañ naan sëriñ jiw mi ndekete nii la te nit ñi nañ teey am na sëriñ yoo xam ne góor jigéen la non nañ teey ci sëriñ si bul fekk nit mu sant si rek nga ne ko yow laa jox sama bopp àdduna ak àllaaxira damaa bëgg nga jox ma salaatul fatiha te yaa yàlla de bu la góor jigéen joxee salaatul fatiha moom tàkk la bu méttee métti réalité la lu am la lu am la am na ci kilifa diine yoo xam ne ay franc-maçon lañu ndax ñooñu du ñu ciblé ku ndaw nit simple nii ngay dem ñu ciblé la noonu non dañuy fekk kilifa ñu ciblé ko ba daaneel ko boole ko seen mbooloo léeg-léeg ñu ne xoolal tiijaan yi di yëkkati seen loxo di def nii te xamuñu sax kilifa diw nangam ak nangam. gars yi tey leen bu baax bu leen fe nit boo koy jox sa loxo boo koy jox loxo pour mu jox la wér na la jikkoom doy mais bul defee sant bu ko defee yaa ngi ci erreur. ku ko def rek yaa ngi ci erreur ndax am na doomu kilifa yoo xam ne ay góor jigéen lañu xaqiqatan ñu xam leen te foog nañ ni boo dëkkee Tivaouane sant si rek moom yow moom baax nga ba yowmal xeer nañ nañ tey li li xew nii ñu ciy sonn waruñ cee sonn de ci yooyu lañ war a sonn nañ nañ nañ tey bu baax a baax a baax a baax nañu teey yii ñu jàpp ni di ci rey suñu bopp waruñ cee rey suñu bopp yii ñuy wax ni te kenn bëggul ko tudd yooyu lañu war a rey suñu bopp te buñ ko jeexee nag gis ko bu fekkee am nga jot mën ngaa gëstu sopp nga mën ngaa dugg fu ne di nga dema dema dem ba xam ne liñ la wax am na yow kañ yaay xam wax wala na noppi yaay xam wax wala moom buñ ko toppee duñ ko jógee waaw <laughs> buñ ko toppee du ñu fi jóge mais li xew kenn mënu ko wax li xew kenn mënu ko wax nit a ngi bokk ci famille yor sant boo xam ne ñëpp a leen ngi topp fekk na franc bu bon la moom te fa mu nekk franc-maçon ñëpp a gën a suufee suufee suufee ca la bokk te day yor kurus ñoo toog ci mbalaanu wasifa ñu ñaan loo ko mu ñaan nit ñi tàllal seen loxo mu ñaanal leen di joxe werd mais nañ da na nañ ci bàyyi xel ndax mënuñoo xëy rek tasante ak ñooñu mais noo koy xamee grand mbubb lay sol yor kurusam sañoo ko wax ni ko góor jigéen bi sañoo ko wax kon yooyu dafa dafa dafa dafa jara bàyyi xel nañu bàyyi sant yi ñuy toppee nit tey toppee nit jikkoom jikkoom gis nga alaaji Abdou Aziz Dabakh kenn werantewul nii alaaji Maalik moo ko jur waaye gis nga li mu am ci nit ñi ak ni mu mel ci nit ñi jikkoom moo ko may waaw jikkoom moom moo ko may sant si mayu ko ko alaaji Maalik jur ko mayu ko ko moom moom moo ko liggéey ci diggante bi ba nit ñi mel ni mu mel ci moom te li ñu wax nii fan nga koy xame fan nga koy gisee mën ngaa tasanteeg moom ne ko jox ma salaatul fatiha mu jox la ko Chérif nee na nag ku la góor jigéen bu la joxee salaatul fatiha moom ndaw li caxu koy toj na de weesu na boobu weesu na boobu réew mi gañ xar na bu yàgg ah waaw waaw dëgg la dëgg la ndax dëgg la dëgg la aha waaw léegi dafa am ñoo xam ni am na ñoo xamante ni dañuy dem Burkina wala ñu dem Togo wala ñu dem euh, Guinée wala ñu dem Inde bu ñu demee am na ci ñoo xam ni gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi xaalis rek la ñuy jàpp mën naa laa defal loo xamante ni boo delloo Sénégal ñëpp lay ko waaye la ngay la nga koy la ngay def du lu yàlla gërëm nga gis ko mu ñëw yore mbooloo nga naan sa waay nu mu def ndax dafa yore turu yàlla ndax dafa yore nangam ak nangam fekk lu bon la yore loo xam du la ko koy wax nga wuy suur nga topp ko mu lay jox xaalis di la jox lu ne nga naan sa waay dafa am doole turu yàlla la yor fekk yorul dara léeg-léeg mu ne la maa ngi dem fu sori maa ngi ñëwaat te moom dong mooy dem moom dong mooy ñëw boo ñëwee du xam lu mu du la wax lii du la wax damaa tukki woon rek fa lay yem ak yow loolu am na fi ñëpp gis nañ ko teg nañ seen bët waaw am pagaay du jeex du xaaj ñoo xam ne loolu rek mooy seen métier kon li am solo mooy bu ñuy topp nit nañ ko topp ci jikkoom te bañ koo topp ci sant ku topp nit ci sant yaa ngi ci erreur waaye nag yàlla dimbali nañu njabootu Cheikh Al Hadj moom loolu teel na koo génnee këram dafa ni fii sant doxu fi lan moo fi lan moo fi dox koo xamante ni li yàlla bëgg ca nga ne li yonent bi bëgg ca nga ne kooku mooy doomu Malick waaye donte ne yor nga sant bi te yoo ñaar yooyu tënkuwoo ci doo sama njaboot doo sama njaboot ñuy wax ni nitu yàlla ak sëriñ moo am sëriñ moom bu fi jógee li mu yore yëpp doomam rek la ci xalaat ku dul doomam bokkuloo mais nitu yàlla day xool ku ko mérito moo tax lu ne nañ lay sant waaw boo xoolee nitu yàlla yi seen doomu bopp yu ñu jur sax da naa ne bëgguñu leen ndax am na loo xam ne moom lañ leen bëggal ëllëg moo tax ñu mel ni ku leen bëggul fekk bëgg nañ leen mais dafa am lu ñu leen yéene waaw dafa am lu ñu leen yéene bëgg ñu am ci te loolu njureel du ko maye futteeku ba seet tarbiya rek moo koy maye ndax laajul doom mérite rek la xam kon loolu yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne chérif ñi ngi daanee foofu kàddu yi ndax waxtaan bi moom bu ñu ko toppee du du du sotti waaw kon nañu def fatiha def ayatul kursi def suuratul ixlaas te ànd ak yàqin ni bu bu ñu ñaanee yàlla ca loolu day nangu moom la sëriñ bi wax sànq waaw moom la wax sànq ñu wax ni soo xoolee taysiir ñetti mujjibu moo ci nekk ñetti mujjibu mujjibu boo jël cinquante cinq lay doon xam nga ci téere bi ñu ngi indi fatiha indi ayatul kursi indi suratul ixlaas mais liñ ci bëgg mooy ku koy jàng ku koy jàng jiital ci jaamu yàlla jàng fatiha cinquante cinq jàng ayatul kursi cinquante cinq jàng suratul ixlaas cinquante cinq ñaata mujjee boo ngoog ñett cinquante cinq ñaata la cent muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wala laa ilaha illallah kese boo jàngee loolu ba pare nga tijjee ko laa ilaha illallah cent soixante cinq gis nga loolu bu doon ci jamonoy maam Maodo la nga yor milliard du la ko jox du la ko jox de xamul tax mu mawda ne mu jaawi basaa'ilil mawda ne mu jaawi basaa'ilil asnaami ma mawda ne mu jaawi basaa'ilil أسنا مماذا جنگ بيومي لكم فدمدو هودنا فمفتخر بمفتخر ينادي هودنا يدعي فدو فأوفي كل حين هودنا وآمن ثم شهر ثم يوم هودنا وآمن ثم ثار ثم يوم مولنا وآمن ثم سرور ثم